alhamdulillahi rabbil alamin ginnaaw bu ñu santee suñu borom julli ci yonent bi sant suñuy wajur maa ngi sant tey mbooloo bi ma wuy di wax ne tey su ma yeney baat bi dole jën ndox te tey wane ngeen ko seen ñëw wane ngeen ko seen taxawaay wane ngeen ko wane ngeen ko seen cofeel tey di wax tey ne ngente bu ñuy ngente jàppal ma jàpp tey ngente bi wér na ndax tey ku xool lii xam ne jàppal ma jàpp wu wuyoon na turam tey yi dëkk bi ñëw nañ borom dina yi ñaanal ñun ñu banaa ñuy ñëw ne leen dem leen dina neex jox leen jox nañ leen suñu bénédiction tey mag ñi ñëw nañ jigéen ñi ñëw nañ xale yi ñëw nañ di wax ñoo ngi leen di sant di gërëm di wax na jàppal ma jàpp li ko tax a jóg mooy ñu jàpp ci lu ñu bokk waxuma jàppal leen ma ma dem waxuma puus leen ma ma dem damay ñoo leen ngeen jàpp ma jàpp ñu dem tey Géejawaay yàgg naa woote Njaareem lu ma laa yàgg naa woote waaye bisu tey bi wute naa ak yeneen woote di wax ne tey yéenay jumbo bi yéenay xorom buy sàppali di wax ne tey projet vision bu ñu am tey dañ ko fas yéene takk ak yéen pacte bi dañ ko fas yéene signé ak tey di woo nag ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo ŋànk gox bi bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw di wax ne projet bi seen projet la teel leen ko seen bopp ñu xàccandoo dóorandoo ba li nga xam bëgg nañ ko ci commune Ndiarème Limamoulaye bi ñu jël ko liggéey pour si Ndiarème jëm ci kanam ki fi nekk nag ki fi nekk ci commune bi dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko guddi fan bu wér juróom-ñaar fukki at foog naa ne ku ko am war nga dem retraite ñoo ngi koy ñaanal yàlla moom nag téeméeri at yeggali projet ci sagoom waaye na dem may xale yi ñu jël tey jamonoy xale yi la alternance générationnelle la ñu wax la rupture générationnelle la ñu wax nañ bàyyi xale yi ñànk réew mi doxal ko tey soo leen demee lu mel ni Franck Dijon maire bi ko yor 22 ans la am xale bu ndaw gis ngeen barki démb France Macron xale bu ndaw la ngeen gis na Libéria ki ko yor weya xale bu ndaw la ngeen gis na premier ministre Belgique 35 ans xale bu ndaw la waaye fii da ngay politique. am 35 ans 40 ans ñu ne la xale nga kon kooku xas la saaga kon tey jeunesse bi tey maa ngi leen di woo à l'image Safara à Guy Gi à l'image de Pambay à l'image de Ndeye Gueye à à l'image de Wextan maa ngi woo ñëpp ak Siteu Bour Siteu xale bu ma bëgg jàttal ya yàlla na xale tàccu leen ma Bour Siteu tàccu leen ma ko di wax ne tey woote ñu wuy si yombul waaye tey sama xol dafa tooy ñëpp wuy si nañu waaye nag balaa may daal damay nag gërëm ko waral bis bi ne tey bis bi dafa ala daw me tey nag gaynde waalo kenn du moom waalo dafa ñëw sama biir néeg dama bëgg na balaa may yeggale ngeen tàccul ma ko gars yi bàq jiin bi ku ànd gaynde waalo gaynde waalo gaynde waalo